waaw waaw jamono la kaa bi nu mu demee waaw. ba am 5 mois te ñun yëguñu si dara laa gis yaay ñu ne ko kii dafa mu ne waaw wóor na yàlla gën ci ñu ñëw dafa ko wax mu ne waaw yàgg naa ànd ak moom kii moom kii kii daf maa mer lool kii koo mën a kii dañ moom kii buñu ma bàyyi woon ak moom doxaan naa ndayam bu yàgg wóor na yàlla moom sama xol moo tàng jooy mu métti jooy jooy jooy jooy ba sonn xale bi xam nga tulli raay bi raay bi xoolal heure deux heures bi nga xam ne yaay bàyyi wax naan tànn moom est-ce que moom daa am lu mu doon jox xale bi wala saa bu ñëwee da ko jox benn garab mën na ko saxel boo naanee saxel day gën a neex ci jàng trois fois la ko koy ñun xamuñu ci dara te moom bu demee dëkk bi day ruus day ruusam ba ma demee ba seetlu ko la ba ma yóbbu hôpital la yaay bi ndax la xam ne kii kii baaxul te moom am na ay doom yu ay doom yu ni ñii ay garaana am moom ñii moom ba mu mu ne xale rek moom ba ne xale la moom moo ko wax nee na xale la nga yàq boo xam ne laa bi dem fenn toog rek la xam. léegi moom 13 ans yi sa risque la. 13 ans. ñii comme ni ko comme ko waxee kaa ni la demee dégg nga daa am lu doon jox xale bi bi di ko naan. bu ko tee bu naanee xale bi day nelaw mu di ko violé xale bu am 13 ans nga violé ko presque ba ëmb bi am 6 mois c'est grave ça. borom bitig bi nag mu ngi ci biir borom bitig soxna si maa ngi lay nuyu. naa hmm, ko Eh, noo tudd. Saybatu Ba. Saybatu. waaw waaw yow yaay yow yaay ra eh, yaayu raa bi. waaw waaw. mun nga ñu wax eh, viol bi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci raa bi ak ki nga ki nga xam si kii nu tuddatee si jàng kii nu. pour mu jàng. pour mu jàng waaw mu yóbbu ko foofu pour mu bu ma yóbbee foofu. xale bi xale bi ma yóbbu ko foofu pour mu jàngal ma léegi noonu ndeketi koy may xale bi garab mu naan mu tëdd ko man xamuma dara mu amul mu mu mu amooy kii yoo mm-hmm. olof mu naan waaw waaw mu tëdd mu tëdd nelaw mm-hmm. mu def ko ni man xaw ma dara kii sama vielle ko sama xareet ndeyloo moo ko gis ko rek ma laaj ma ana saybatu gis nga sa doom bi ma ne de gis naa sama doom de ma ne la lu mooy jàpp sa doom bi ma ne ah damaa fii borol la di ndeyloo mu ne déedéet xoolal sa doom bu baax sa doom bi daa biir ma ne ah mu ne waaw daa mu am 5 mois. mu des kii benn kii benn semaine waaw noonu lay gis ni mu mu yóbbu ko si hôpital bi mu gis lool waaw. donc yow. nan ah miin man kay moom fekkee yaram bi rek mooy yaram bi mooy dem chaque yaram bi yëpp moo dem yëpp daa dem mooy am na kuy wax ma yóbbu ko si hôpital bi ma xool fekkee biir bi eh, biir bi tu kii nu fiibroom waaw nan damaa yaakaar loolu lay jàpp du dee ma yóbbu ko si hôpital bi tudd naat du loolu ndeyloo moo ñëw rek ndeyloo moo wax ma ne xoolal sa doom bi bu baax ba sa doom bi daa biir ma ne ah ma ne waaw ma yóbbu ko si hôpital bi ma xool ko tey fekkee daa biir mu amul cinq weer mu manqué lii mu insomé waaw léegi am na ñu bëri nag ñu doon wax ni. xëy na da ngeen mhm. mhm. ndaw si amee doom mu tax ko moo taxoon. ngeen bañ a xam ndax ëmb ah, mhm. parce que def naa erreur bu pare. du ma mun du def noonu. parce que xaw ma xaw ma lii saa lu ñuy defee nii. Eh, raa bi ñaata at la fa ñaata at la am. raa bi ñett eh, kii nu mu tuddati ans. waaw treize ans moo actuellement ami rabi bi moom rabi anam dem na si école. dem na continuer di jàng. waaw mu ngi doon tay tay lay commencé fan yii yëpp jàngu tay lay commencé waaw. raa papa mu ngi fii wala fii la juddoo wala fan. la juddoo de kayit bi fii la juddoo raa papa mu ngi fii waaw. léegi nag nan ngeen fas yéenee def waa moom ki ko ëmbal fi mu toll nii waaju bi eh, kii yóbbu naa ko de gendarme bi yóbbu naa ko waaw. léegi nag dama lay bàyyi nga wax ci mhm. mhm. ko mhm. la Fuuta expliqué ko. duubi. waaw yëkkati na ko waaw waxal waxal. duubi jeetati duubi sappo e tati oɗo gorko waɗimo ɗum ɗo mi naɓmo fi yo janggo fi yo jannanammo mi yoɓaymo lewru kala lewru 3 mil tawi jaga ko ɗum ɗo waɗantalam bobo o anda min kadi mi anda mi andude ɗum wonde ndeylo wolannolam mi wondi ɗo ha kono mi anda ndeylo haalalilam inni wo ko sadonɓe da ɓiɗo ma heeɓi minne yo mi ƴetti omi ƴettimo mino e kalabtano min tawi ko ɗum komo lebbi joyi manko ɗum yontere ko noon woniri eyyi min noon ka fewno ɗo ko fuusi aaden ala koye luwa ɗum min woni kamin woni ɗo ko stayi on tigui yeeyi golloy yeeyi yeeyoy wo mi ara mi saggina modi an ala hay fuusi fuusi min joguita koye luwadu min woni eyyi